ñun dañu ne quartier boo xamante ne péjorativement dañuy wax ne quartier flottant la loolu mooy lan ñu woyofal ñu ba nga xam ne lii nga xam ne moom la état war ak ñun ña ko war a jël jox ñu ko du ñu ko jox mais dañuy jël dem Parcelles Assainies yi nga gis nga xam ne ay quartier la yoo xamante ña fa dëkk dañoo man seen bopp ñu liggéeyal leen ko te bi ñu doon xeex xeex bi suñuy baay bi moo ànd ak xale yi ñu di xeex xeex bi ba projet yi ñu teg ko teg ko euh, au niveau de la commune ñu war ko réaliser ñu dem réaliser ko au niveau des parcelles ñu ñëw laisser en rade quartier flottant yi est-ce que loolu yoon la boo gisee quartier am Amdalaay Daaru Misel Buun mooy ñetti quartier yi nga xamante ne ñoo ëpp doole ci commune Kër Massar ñoo ci ëpp nit coow bu amee ñoom ñooy jóg ñu xeex bu ñu jógee xeex nag ñu war a séddale ñu jël lépp yemale ko loolu je pense que mu dimbali ñu lii ñu li ñuy xeex ñu am ci ndam waaye Anam Sarr li ka ci war ci wàllu communication ak ay démarches naka def ñu liggéey poste de santé parce que mënuñoo nekk quartier boo xam ne plus de neuf cent habitants. neuf mille neuf mille habitants. yaa ngi dégg mënuñoo fexe am fu ñu fajoo fii képp ku fi jog pour faju rek. da ngay dem ba nekk en état d'urgence mm. ñu passal la taxi nga dem directement urgence nga jubal kon bu fekkonte ne am nañ les premières interventions nga xam ne nit ki feebar na mu doxantu ba si poste de santé bi ñu seet yaramam mu naan garab di avancer ak noonu am wér gu yaram mm-hmm. yaa ngi dégg mais fii ku fi feebar bu méttee ba métti poste de santé bi nekk yëmbal nga jëm mm-hmm. wala lan Malika est-ce que est-ce que loolu une commune digne une commune digne de son nom war na mën a dundee noonu hmm. dañuy ñaan yàlla monsieur monsieur le maire bëgg nañ ko jàppale mais ñun duñu jàppale koo xam ne liggéeyaluñu te et puis ñun on est prêt pour que moom bu deful li ko war ñu am suñu taxawaay fal ku ñuy liggéeyal suñu kàddu waaw bassin de rétention bi boo ko xoolee nii da ngay gis c'est une bombe écologique parce que képp mala sax bu fa duggee faatu sa kon nit waxat waxatuñ ko yaa ngi dégg wax nañ ma démb si suñu benn réunion que y' yaa trois personnes yoo xam ne décédé nañ fa au courant des années passées léegi nag actuellement nii le gouvernement de son excellence Bassirou Diomaye Diakhar fay ak le premier ministre Ousmane Sonko ñun bi ñu doon xeex pour ñu fal ñu ngi woon ci bureau yi di reyante mais loolu soxlawuñu si benn rétribution li ñu bëgg mooy liñ ñu war a réaliser ay marché yoo xamante ne gagné nañ ko ñi ko war a réaliser ñu réaliser ko ñun loolu lañ soxla si ñoom mais soxlawuñu si ñoom poste soxlawuñu ñoom si dara dara dara mooy li nga xam ne war na si ñun ne suñu droit nekk ci loxoy maire yi Adama Sarr li ci responsabilité mu taxaw si fokkati ko jox ko. parce que depuis plus de six mois. Nous attendons le le poste de santé, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Je rappelle que nous sommes dans un quartier qui compte plus de 9000 âmes, mais qui est défavorisé sur les plans et qui de tout. Et pourtant, le conseil municipal de Kermassar Nord avait voté au courant de l'année 2023 pour la construction d'un poste de santé au niveau de notre quartier. Mais les travaux n'ont toujours pas été démarrer. Le blocage, on ne sait pas exactement là où ça se trouve. Mais je rappelle que ce poste de santé a été financé par les fonds du PACASEN. Et ce poste de santé pouvait être une bouffée d'oxygène pour cette population asphyxiée par un manque d'infrastructures et voilà, qui vivent dans une insécurité sanitaire totale. Mais malheureusement, les chantiers n'ont pas démarré et l'équipe municipale n'a absolument rien fait pour que les chantiers démarrent et nous déplorons cet, effet, cet état n'a pouvant nous renseigner sur le début des travaux. Euh, aucun acte n'a été posé, que ce soit euh, au niveau municipal, que ce soit au niveau de l'État central. Aucun acte, franchement, n'a été posé. Euh, tout, le, tout, le, quartier n'est pas assaini. Et pourtant, un, ça, ça, ça pouvait être assaini, puisqu'on a vu d'autres quartiers qui sont voilà, du même type que les nôtres, qui sont vraiment assainis. Et aujourd'hui, on parle plus d'inondation dans ces quartiers-là. Mais comme nous, on est laissés en rade, eux, ils pensent que nous ne sommes pas partie du, Sénégal, nous ne sommes pas partie mm-hmm. intégrante. Mm-hmm. C'est pourquoi on réclame mm-hmm. aujourd'hui l'assainissement de notre quartier, on réclame l'éclairage public, on réclame la construction d'un poste de santé digne de son puisque là où il y a 9000 âmes, je pense que ce petit case, de, santé ne